waral initiative bi dëggantaan mooy euh, dañuy ay jigéen nekk ay euh, porteuse de voix gis ne feebar bi mi ngi ravagé te dugg na ay Gueule Tapée dugg na Médina ñu ñëw si suñu quartier dëgg-dëgg am suñu man de pour jàppale jaam yi nga xam ne ne euh, li Aby Ndour naan gor rek sonn du yelwaan te rus naa ñaan doomu Médina ay gor lañ ñoom mënuñu ñaan mënuñu yelwaan kon nag tey jii comme dañu doon xaar tey jii ki nga xamne mo nek ci maire bi def acte bu melni mu yex ko def ñëpp di joy parce que dëkk dëkk bi coronavirus bi bi mu ñëwee ba légui matna 1 mois et quelques kon nit ñi commencé nañ son lof nañ loyer yeeg yëpp ñu bëgg ko def kon ku leen indil ciép indil leen diwlin indi leen ay antiseptique yëkkati enveloppe jox leen yaakaar naa ne dina leen euh, dina leen satisfaire ndax tey jii euh, su fekkee ñu ngi digle jigéen ñi pour ñu sol ay masque te yàlla def na seen doole amu ko man ay gigi ñu xalaat xalaat bu rafet ne nañ jënd masque yu doy nañ jënd antiseptique nañ defar mu baax jox leen ko ñoom ñu mën a am loo xam ne ne seen kaaraange la ndax nag ñun nekkuñu fi lu dul euh, développement wu jigéen ñi xool nu ñuy mën a avancé ci seen liggéey ñoo xam lu ñuy mën a aaroo ci jàngoro bi ndax jàngoro bi képp xam ne porteuse de voix nga rek am nga ci yoon dëgg la mën nga woy waaye mën nga yëkkati ci lu la yàlla dooleel wala say bonne volonté ñu jàppale la nga mën a euh, jàppale ñi nga xam ne ne tey ñi ngi ci besoin bi ma distribution bi ni muy demee mooy euh, képp koo xam ne nag tey xam nañ ne sa loxo jotu sa ginnaaw sible nañ fi kër yu bëri xooluñu xaaj ñu seen xooluñu kii wala kaa dañu ñëw naturellement def ko te yàlla rek moo tax la distribution a commencé à 33 ba angle bi ba 33 fi mu jexé ñu duggu jé ko amna quartier kër yo xamné ciblé nañ ko té ay di doolé lén seen loxo jot seen ñu dem ñu gigi indi na gis nga camion gigi indi lépp ay la ak ay ak yépp amu camion mom medina mom Inshallah. su féké ñun suñu yéné rek motna na. Ah, wax dëgg dinañ satisfaire ñi nga besoin té soxla nañ Thank you.